asalaamualeykum wa rahmatullah mbokku taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di laan ziyaare ñu ngi toog fii ci jataay ànd ak sëriñ Cheikh Aliou mi nga xam ne mooy président comité d'initiative pour le Touba Maou Rahmati ànd ak sëriñ Moustapha Moussa mi nga xam ne mooy vice président bi ak man mi di malik Badiane di administrateur bi mu amoon ay kàddu leeral yu ñu bëggoon a indi ngir gaaral ko askan wi te jëmele ko ci liggéey bii nga xam ne sëriñ Sidi Muxtaar moo yeesalaat liggéey bi ci loxoy sëriñ Cheikh Aliou te soo xoolee boobu ba léegi mu toll ci fukki at te yi nga xam ne nit ñi seeral nañ ko seen bopp ci forage yi ci robinet yi ci kër yi ak ku xam tuuba ni muy yokkee ndox mi day moom mën ngaa seere ne yokku na ànd ak askan wi ni muy doxee ndax gëj ngeen fee gis rootaani gëj ngeen fee gis njàmbat lu metti te loolu yépp buñ ko amee pas-pas ak yéene ak liggéeyub Serigne Cheikh Aliou ci la loolu amee fii ci Touba te lépp loo xam ne indi na ko ak ci anam yu mu ko mën a amee day delluwaat ci moomeelu Serigne Touba kon lépp loo xam ne moo fa ne ci alalu Serigne bi la kon képp koo xam ne def nga walla nga wax jëmale ko ci maaw raxmati ci alalu sëñ bi nga dal ci sëñ bi nga dal te it gis nañ depuis bañ tàmbalee ba léegi amul weer wala ñaari weer yu ñu toog te amul ñu taxaw ngir yàq loolu liggéey boobu kon li ëpp ci wax ji sëriñ Moustapha ak sëriñ Cheikh dinañ ko leeral kon jox kàddu gi sëriñ Moustapha mu dolli ci ay kàddu leer. kon nag Maaw Rahmati moom waxoon nañ leen doxalin bi rek nekk lépp dañ koy teg ci organisation ndax sëriñ Cheikh lim njëkk a yëg ci boppam. mooy dafa am kuréel goo xam ne nii mooy jëwriñ ja sëriñ tubaab dénk ko ko wante njabootug Serigne Touba gi la ko war a àndal di liggéey wante it yëkk na ci boppam xam na ni kenn nit saxul nit ku ci nekk it la muy mën it bu ko ànd ak mbooloo lay gën mu nos ko nosin woo xam ne nii kenn ku nekk boo ci bëggee bàyyi saw laaj da nga ci bàyyi saw laaj ca doo jotee kenn xëy na nag mën naa am it du ñàkk nag loolu léeg-léeg ñu muy déranger ci ñoo xam ne xëy na nañ ca bëgg a doxee. ak lañ jàpp ne moom lañ ko bëgg a am amuñ ko ca bay am yeneen gàllankoor yoo xam ne nii danañ koy def wala lu jóg ñu bëgg ca langaam witu jàpp ne dana leen may buntub loola ndax loolu misaal bi ma ci jox rek ba maawu raxmati juddoog léegi buñ doon desalee daanaka indi nañ fi lu ëpp ay juróom fukki projet yoo xam ne benn bu ci nekk am na ñuy bootu ca gannaaw di ko def ca ñooñu it lépp projet bay ëmb ci ak diisaay ci ak yeneen mooy tax Serigne Cheikh di ko def du bañ loolu ndax am na ci loo bu ko taalibe yu mëneel mëneele seen bopp di ca dox ndànk ba àgg fa ñuy jëm la ca des nga cee lenqanteeg état loolu lay doon. kon yaakaar naa anam yooyu ci la ñuy dox kon nag ñun ñi nga xam ne nii nekk nañ ci gannaaw Serigne Cheikh euh, li nga xam ne moom la ñuy fas yéene mooy lu ñu defoon démb ak bërki démb ca Serigne Touba dong tax dañ ko yokk duñ ci wàññi benn cible lu toll ne benn cible duñ ko ci wàññi. dana ci gën gor góorgóorlu taxaw ci ci gannaawam ndax xam nañ ne mom mi nga xamne mo yor ndigal li bu lompagne ci doxine wi rek ñepp lompagne ci yaakaana bu ñepp lompagne dekk bi yepp koy yek ci yit manam liggey Serigne Touba warta taxaw warta yaq warta delu gannaaw kon nak lool mom danañ ko assurer Serigne Cheikh ci fiñu toll di la xamal ni nañ la ko daan waxe rek doxal jëm ci kanam bul gessu kenn xamal ni Serigne be nek sa kanam mo nek sa gannaaw mo nek sa ñaari wet yepp ñu nit ci biir kuréel googu it ca lañ bëgg a fas yéene ëmb ba nga xam ne fépp foo xam ne ni fas yéene nga faa yóbbu liggéey bi rek boo gestoo danga ñu gis ñu ànd ak yow képp koo xam ne it nar na laa dox ci sa digganteek liggéey bi it waral ci kawam jàll ci xam ne sëñ Tuubaa nekk ci sa kanam ñu nit danañ jéggi ci kawam jàll kon loolu moom mooy engagement bi nga xam ne nii moom duñ deñ di ci des nit aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim الحمد وشكر مع الله على نبي ولد عبد الله أه، بوكي يوليدي بوكي سنغال نيغلين دي زياري أه، دي سنت سنبرم تبارك وتعالى دي يوليكي أنت بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي سنت سرين توبا أه، دي سنت بباخي تم خليفة العام لتعيفة المريدية سيدي مختار مبكي ميغا خمني لا فبايكو فيتم مبكي كاجور اند أك Malick Badiane mi nga xam ne mooy administrateur Maou Rahmati muy comité d'initiative eau de Touba ak ñañu fa fekk di leen xamal ne dañoo yëg ne am na xew-xew buy waaj a am maanaam ay waxi ŋàññi yoo xam ne mi ngi nar a jóge ci ay nit ñu bëgg koo jaarale ci médias yi maanaam ci télévision moo tax nu jël suñu kàddu yëkkati ko di xamal doomu aadama yépp ne euh, ba nu tàmbalee ba léegi ñoo ngi jaar ci ay ñu ni fakkatal di wéq ak padd ngir liggéey bi ñu teg suñu loxo te nu leeral ko nga xam ne leeraay gi daanaka moo tax mu yor boppam moo tax ñëpp sawar ci ñu baax ñi ñu ko suñu saa wax léegi sëriñ su baax si ànd ci taalibe yi ànd ci bokk yi yu baax yi ànd ci euh, loole leeraay bi ñu ko leeral moo tax kenn mënu caa am leneen ndax lépp lu ñuy joxe dañ koy jaare ca banque ba lépp lu ñuy réaliser dañ koy def ñëpp tekki seen bët imaam seede ko mu lu leer nañ ñi loo xam ne kenn mënu cee lëndëmal dara ñu yëg nag ne ñooñu nga xam ne def jàppal nañ ne lépp lu ne ci dëkk bi lu lu fi xew ñoo ko war a xewal lu war a am ñoo ko war a amal te ñuy at nit ñu néew yoo xam ne mën nañ la mën naa leen a wàññi ci sama juróomi baaraam ñooñu ñoo defee ne dëkk bi ñoo war a jiite lépp dëkk bi nag duñu boroom ëppale wuñ fi kenn dara waaw euh, jàpp nañ ne seen daraja àgg na foo xam ne kenn du leen laal waaye bu fekkente ne kii nga xam ne dañ koo gemb tam ñi ñu gemb bopp tañ nar wax ci télévision wala ci média yi pour yàq deru maa u rahmati wala ñu jéem cee yàq sama der euh, nañu xam ne juum nañu bis bu ñu ko defee ñu teg ko ci média wala ñu teg ko ci télévision danaa jaar ci seeni tur ñoom ñëpp kenn ku ne am nga loo ma wax lu wér wér loo xam ne maa ngeeg màndarga yi wax nga ma dara proposé ma sa projet ba ma ci àndul nga kon contre ma parce que loola yow dong la concerné concerné wul population yi concerné wul doomu aadama yi soxalul doomu aadama yi la nga la nga proposé moo tax loola ñu gàntal ko loola kat moo leen naqari xëy na ndax man ki ma dénk laa seet muy sëñ Sidi Mokhtar te danaa ko di rendre compte léegi fa laa jóge mu jox ma euh, lii muy juróomi million waxaguma ko dara booba sax mu daal ne ma lii moo ko barkeeloo kon Malick téye ko bu subaa nga verse ko ca compte ba noonu la demee kon képp koo xam ne yaakaar nga ne dangay ñëw jàll sàkk maslaa nan ba fan mën a yem waaye li ñuy mën a waat daal nga xam ne dañu koy euh, seereel Sénégal gépp mooy loo wax jooju su génnee bu soobee yàlla kenn ku ne ci juróom ñooñu danaa wax euh, fa nga jaar ak man ak la tax ngay yàq ak ña nga laxasu seen ginnaaw pour yàq sunu liggéey pour jéem a yàq liggéey bi ñu xamal ne ñun liggéey bi bu dee ci ay pexe ak i moyen daf noo gàllankoor ndax ndigal rek moo tax ñu nekk ci sëñ Saliou Mbacke moo ñu ko digaloon suñu xel di dem ci ku baax ka nga xam ne luñ si xam moo tax muy sëñ Abdoul Ahad Mbacke sëñ Saliou digal ñu ko Euh, Seydi Mouhamed Lamine Bara wéyal ko sëñ Sidi Mokhtar ne naa ci jaayante ak Serigne Touba moom dong lay rendre compte du ma rendre compte keneen yàq gi nag bari na waaye bu fekkee jaar nañ foofu pour yàq kenn ku ne danaa jaar ci sa tur expliquer ko leeral ko ba mu leer sénégalais yi ne ñii kat ñoo ngi fee nekk di dundee Serigne Touba waaye dundaluñu ko lu leer nañ la te danaa jaar ci seeni tur bu dee ragal la sunu borom tabaraka wa taala nu bëgg moom la nu ragal bu dee bu dee bu dee gëm Serigne Touba la ñu gëm ak diine lislaam waaw kon ak vertu yi nga xam ne maam yi bàyyi woon nañ ko fi ci réew mi ñu ñaan kon euh, ñëpp nekk ci jàmm ndax jàmm rek moo ñu yëkkati jàmm la ñuy wax euh, ci la ñuy wax ci jëf ci la ñuy def sëñ si Moxtaar dafa waxoon ne lii itam nan ci jëf di ci dox di ci wax waaye nag la taxoon muy wax mooy ñu wax ci lu baax di ci jëf lu baax di ci def lu baax ñii nag dogu ci tilimal ko xajamal ko du soobee yàlla kenn ku ne séq nga ak man wax wala ma xam ca na mu demee ak la nga ma wax danaa jaar ci seeni tur ndax amuñ ci genn ragal yàlla rek lañuy la ñuy seet jéem a jaar ci jub loolu la sëñ Tuubaa digal kon foofa rek la ñuy tegu incha allah jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ba tax na moo tax ma woowaat ko léegi ne ko gannaaw mu sëñ Cheikh woo ko defoon ci euh, tànnoon la doy loola teg la fi kon nag gannaaw léegi dugg ba léegi nag kon dama bëgg noonu la sëñ Saliou tegoon foofee mu la tegoon nga doxin fa doxin wu sell gu rafet ba si fii tey ma bëgg tegaat la foofee nga nga yeesal ko ngeen dox doxin wu ngeen daa doxe loolu moom taxaw moom mu daa ko woon wax ko ko ne ko na ko na nga ko wax ñu ngi ko bokkal ñépp waaw waaw nga xam ne moom mii laa fa teg na na bureau ba tëddee woon bu njëkk rek nañ ko tëddee noonu rek moom mii nag mooy mooy njiit li waaw waaw nañ ko tëddee woon bu njëkk rek na ko bureau ba nañ nañ ko doxalee noonu rek loolu moo doon loolu moo doon woote bi moo doon digal li itam waaw bëgg nañu bu baax waaw ci maa ngi ci kilifa yi ak taalibe ñu def ci seen loxo nañ ko laa defee jëf ci di ci dox di ci wax di ciy jëf duñ ko def jox naa ko ndigal ñëpp kilifa kilifa yeeg taalibe ñu nekk seen gannaaw ñëpp jox nañu ndigal ñu def seen loxo niñ ko daa defee